tunati <clears throat> ville ak euh, ki nga xamante ni mooy mm. Nix euh structure bi xaw dafa xaw yag yàgg mm. ma jógee foofu nag ci la monté sama studio bop liggéey naa tamit tabala liggéey naa studio yu bari fi Sénégal moy mm. au niveau de Grand euh mais Kenen kenen production moo nekkoon label bu produire Nix euh, en 2004 donc bu ma jógee ci label yooyu yëpp ci la monter sama label bop euh, bu tudd Janj bu nekk au niveau de thierry Azur session 2005. ok juste pour def benn euh, parenthèse euh, ça veut dire que tamit euh, sa carrière musicale au niveau du Sénégal. Mhm. dafa mel ni yaatuwul yaatuwul noonu parce que ci biir waxtaan bi dégguma nga wax comme par exemple comme côté génn ngay son fi au niveau Sénégal explique parce que da nga si def benn genre break bu ndaw. Mhm. ci bu baax. Mhm. mais je crois que est-ce que du loolu moo la gën a facilité gën laa may link ba nga am yenn opportunité effectivement c'est-à-dire man mën naa ne sant yàlla quoi am naa. Euh, nekkul carrière ci musique en tant qu'artiste mais carrière ci musique en tant que euh, acteur culturel parce que sama sama jaar-jaar ci rappeur bi ma 2003 japp 2007 parce que 2007 ci le groupe bi parce que sama benen copain bi dafa dem euh, ci ay activité au personnel man ma tourné ci animation parce que animation fi Sénégal 2007 là ko commencé au niveau de la radio Nostalgie donc le fait que mon un rappeur je rap un producteur bàyyi production bi tamit dugg ci animation ñu jàppale gars yi peut-être loolu tamit moo may lu li nga xamante ni moo tax ma mun a liggéey ak gars ko quoi ok léegi Euh, comme par exemple jóge nga sa carrière euh, rappeur. en mhm. en plus tamit nga nekk euh, comme animateur. Mhm. léegi ñaar yooyu ñaar yooyu ñaar boo doon def kii bi maanaam boo doon def synthèse bi. Mhm. nan nga koy nan nga koy nan nga ko gisee daal comme nga nekk rappeur nga jóge si après. ba doon animateur loolu nan nga ko gisee. loolu question bu am solo la maa lay remercier ci question bi parce que rappeur artiste moom mooy source. parce que musique fan lay jógee ci xel donc artiste. rappeur moom mooy source bi euh, animateur moom mooy diffusion té diggante source ak diffusion ci la ñu bari di intervenir moy management bi tourner bi et cetera et cetera mais source bi bu amulé bu amulé création bu amulé rappeur du ñam musique animateur tamit tout ce qui n'est pas diffusé n'existe pas tay lu diffusion chère c'est parce que looy diffuser euh, communiquer manam li nga xam koy divulguer loolu la nit ñi di japp ne loolu moy dëgg loolu mo am donc animateur, ci artiste nu mu amee solo non la amé animateur amé solo quoi voilà ok euh, tamit euh, comme par exemple man man des fois damay top nit damay topp nit bu mu nee damay topp nit man damay def euh, recherche si nit ki. Mhm. gis naa que ni Tarek Show day sonn day sonn si émission maanaam ci côté marketing. Mhm. ci côté promotion. lu bëri damay gis que ni da ngay sonn sa émission ça veut dire que tamit parce que tamit émission. bu jaaree yoon rek ça veut dire que ki koy présenté def na def nay investigation tamit bon côté. Euh, ressource manam euh, son na ci dal euh, mhm. loolu non nan la liggéey peut-être expérience la wala wala wala wala wala boog yow bëgg bëgg li ngay def la wala wala lan la. bon yooyu yëpp la boo gisee tamit man sama émission dama ko jàppee comme sama carrière musicale rek xam nga ni nga jàppee yow sa sa album wala sa projet wala sa studio li nga xam te ni mooy maanaam comme que sa gagne-pain la dañ ci war a investir. Mhm. investir temps investir tamit xal xel xalaat nga gëstu ci mun ci def ndaxte jàppal ni tey euh, jamono day dox. ay jamono amul internet. ay jamono peut-être canal FM rek lañ amoon. peut-être différence bi mooy canal FM ak canal télé. tey am 3G 4G 4G plus ci téléphone. donc yooyu yëpp ay internet mobile donc yooyu yëpp ay canal la. yoo xamante ni il faut ñu mun ko mun exploiter pour nga mun a tegu. parce que boo fee da ngay animer juste pour animer loolu amul sens. booy dugg ci benn affaire il faut nga jàpp ni yow il faut nga nekk na mboo mooy côté ego trip bu rappeurs yi. ñun tamit ñu koy am ci animation. donc tay man sama émission dama ci investir mais ñaari pàcc la dafa am lu ñu ciy def mais dafa am tamit li nga xamante ni mais rajo bi moom moo koy def. parce que da ngay gis ani euh, animateurs yu bëri ñoo xamante ni ñoom dañuy def ay effort trop ci seen animation. mais rajo bi du suivre du investir au même titre. ay gis ñoo xamante ni euh, média bi mooy investir ci animateur mais animateur bi du def du def effort quoi. Mm. ok euh, loolu loolu noonu comme par exemple sànq da nga ni que. yow mën nga doon animateur. Mhm. Euh, nga def investigation maanaam sa émission. Mhm. Euh, te tamit euh, fi nga nekk fi nga nekk du la topp léegi yow loolu loolu noonu boo doon jox conseil animateurs yi nga xam ne instant ñi ngi def rajo. Mhm. peut-être mën naa wax que ni comme en tant que expérience. expérience bi nga si jot a am. parce que tam c'est pas évident c'est pas évident tamit ak fi nga jóge ak ni nga ñëw ba imposer wu au niveau de au niveau de Dakar. parce que xam nañ foofu noonu concurrence bi dafa métti. Mm. concurrence bi dafa métti euh, trop trop trop trop te tam gars yi ñu ngi lay euh, suivre gars yi ñu ngi lay suivre loolu je loolu li ma gis que ni euh, travail liggéey liggéey liggéey moo ko jo kii liggéey liggéey métti moo ko joxe. Mm-hmm. li nga wax dëgg la de xam nga jam jamono yi dañu nekk ci jamono village planétaire bu njëkk ba boo doon wul soxna si boo doon am concurrence ak ki nga xamante ni moom yéen a bokk gox wala yéen a bokk euh, li nga xam te mooy dëkk wala yéen a bokk maanaam style bi ngeen di def loolu bu njëkk ba la mais jamono yi c'est un village planétaire yow tey booy def hip hop da ngay concurrencer ku nekk New York da ngay concurrencer ki nga xam te muy Australie ku nekk euh, euh, Éthiopie ak fépp donc tey booy defar sa produit di ko génne parce que émission produit la boo koy def il faut nga sóoraale ni yow tu en concurrence avec tout le monde

donc loolu moo tax lépp loo war a def foog nga xool ni ñu koy def mm. segg ko mm. boo amee benn conseil may jox animateur yi mooy ñu gëstu mm. nañ dem jàngi nañ jàng ci lépp lépp que ça soit le digital que ça soit global maanaam euh, euh, connaissance générale euh, que ça soit ci culture ndaxte tey animateur yooyu yaay waxal nit ñi animateur anima maanaam yooyu yaay dundal li nga xamante ne mooy musique bi waaw donc pour nga mën a wax wala waxal nit il faut tamit li ngay wax mu leer la pour convaincre il faut que tu sois convaincu donc yow da nga war a xam yow li ngay wax mën ko wax. Hmm. ok dafa leer ça se passe sur la mer bande fréquence 93.5 euh, euh, Ngaye FM comme ni mu leen ko waxee woon euh, Show moo doon sama invité mix ngi si ànd ak. béykat di ko ziar lu bëri. daal comme par exemple sànq demoon la c'est pas évident temps bu mel ni Dakar nga ñëw nga imposer en tant que DJ tamit je crois que ñu bëri ñu ngi si émission si.

peut-être xam naa loolu moo moo moo gën a tax sax yëf yi gën a gën a maanaam gën a fës. ok euh, tout tam gis nañ que ni jox nañ la benn trophée mhm. jox nañ la benn euh, trophée euh, loolu lan moo ko waral comme sànq rek ni bon ni ko ni ma la ko waxee si biir waxtaan. Mhm. liggéey la bu nga xam tam peut-être nit ñi teg nañ seen bët wala boog dafa doon lu nga xam ne da nga koo mérito wala lan. <laughs> waaw alhamdulilah mun naa dee déjà alhamdulilah. ensuite bon trophée bien en question moi Galsani Papa année bi bi moi cinquième édition nous indi li nga trophée meilleure émission hip hop Galsen mm. bon taille, euh, mon année déjà première remarque nous ñëpp ñu ñuy nominé ci Galsen Hip Hop Awards ren man jël naa une émission contrairement à yeneen émission yeneen émission yi am émission, ñu y a une émission, il ci une émission donc déjà loolu moom mën a filndee loo de peut-être man a privilège par rapport à émission émission radio parce que nekkul meilleur animateur mais meilleur émission. man sama émission dafa nek loo xamante ni euh, plateforme la boo de ni multi service day am partenariat ci biir day am promotion événement ci biir day am digital ci biir. day am couverture événement ci biir day am euh, waaw ay live. day am tamit euh, jeune talent yi tamit dañ ci gis seen bopp et cetera anciens yi ak donc dafa nekk benn plateforme bu multifacette boo xamante ni gars yi dem nañ ba gis ni ah par rapport ak lu euh, yeneen euh, médias yi wala yeneen animateur yi lu ñu proposé ci li nga mooy émission hip hop Galsen suñu bës peut être moo moo moo ëpp ay facette quoi. Mm. yàlla def tamit bon euh, Galsen hip hop ñu gagné trophée bi mu nekk loo xamante ni ah loolu moo nekkoon objectif bi mooy lu mu wax sànq. Mm. booy dugg ci benn biir booy def benn affaire li ci ciy séntu mooy nga nekk nga jël pay. Mm. donc ren alhamdulilah jël nañ ko ñu ngi séntu di woon ak yeneen yi. waaw ok léegi yow trophée bi da nga koy féetee wala lan waaw man ma sax anniversaire <laughs> parce que c'est ce que j'ai l'habitude de dire sommes déjà on est en retard ñun bu sommes ñun retard ba pare ñu nekk di fête dañuy nous sommes tardé ñun Nous war di teel di sommes ba pare defar suñu da ngay gis ci mouvement hip hop rappeurs yi am euh, héritage parce que ñom aw di ci aw di ñoom bu ne grand yi rek amna ñi nga mën lim même graffiti boo xam dafa bok ci hip hop amna ay euh, kilifa ku mel docteur wala ay misérable graphe etc. mais ci animation hip hop Galsen ñun amuñu héritage tay ñun animateur yi am animateur hip hop Galsen amuñu statut Journaliste, qui a un statut ci code de la presse mais ñun animateurs on est on est ñun on est qualifié dagent programme maanaam ñun ñooy xumbalkat yi hmm. te ku fi tijji rajo wala télé animateur lañ njëkk avant technicien ou le journaliste parce que moom mooy jaay antenne bi ok Légui, est ce que loolu est ce que loolu laajul organisation est ce que loolu laajul organisation non nous ñoo ci war comme par exemple de telle sorte presby. bi presse hmm ñu le code de la presse nous dund mm. donc ñu mes journalistes ils sont pas encadrés mais ñu faut fëgg ci table bind code de la presse euh, dougal ko assemblée gars voté ko ba am ko. Mm. lu tax ñun mm. Michael etc mais ils nous ont pas laissé d'héritage donc ñun ah, c'est ça le problème organiser créer association et am tamit suñu ok muy Tall Rek Show euh, di doon euh, mu doon doomu ngaay euh, mu doon doomu Ngaye tey mu doon sama invité ci couleur urbaine wax nañu wax nañu wax nañu boppam wax nañu boppam mais dama dama dama seetlu comme par exemple sa émission. Mhm. comme da nga ni Tall Rek Show. Mhm. souvent côté show lay doon. Mhm. wala parce que souvent demee gis artistes yi da nga leen indi. mais le plus souvent que li ma seetlu. Euh, mhm. tu poses euh, peu de questions. waaw maanaam yow côté show bi ngay gën a animé côté animation bi. Euh, laay ah, gis te te en général tamit li ma jot a seetlu tuuti. le plus souvent artistes yi ngay ëpp yooyu invité mooy artistes yi nga xam ne dañoo def classe. <laughs> bon loolu loolu benn remarque benn benn remarque moo benn remarque moo nga xam ne jot naa ko def tuuti. Mhm. waaw te wala des fois da ngay gis yi nga xam ne xaw nañoo am tendance tuuti. xaw ñu am tendance tuuti des fois nga indi leen. Mhm. nga xaw leen a dugal xam nga am am am noo def souvent da ngay kii euh, genre question piège nga leen def da ngay da nga leen kii ba pare nga kawlu na le waaw bon question yi nga ma posé bëri na mais naa ci jëm a répondre xool déjà man sama émission ñëpp laay invité ñëpp waaw ku mérito rek ma jël la waaw que ça soit ça fait un mois ngay rap wala ça fait cinquante ans ngay rap man ñëpp laay jël ça c'est une chose deuxième chose tamit sama émission live la mooy maanaam tey prestation jaayatul euh, maanaam li nga xam te mooy CD disque jaayatul live moy jay tay tey boo fayee artiste lu bëri c'est parce que da nga bëgg gis mu def prestation en live donc man loolu la yóbbu ci radio bi yow artiste nga kay nga prouver dama lay jox bit nga teggu ci wala yow génne nga ben projet mu jël projet bobu teg ci radio bi gaay yi ci jot loolu moy deuxième chose bi troisième chose bi clash bi rap yëfu mbedd la donc xama man may the best ñëw wanewu ego trip bi loolu ma ci gën a fës mais du loolu rek moo fa nekk am na bind bi am na waxtaan bi am na knowledge bi am na lu bëri mais comme que Sénégal dañoo bëgg histoire loolu ma ci gën a fës mm. donc loolu la rek waaw c'est culturel quoi Sénégal moom dañoo bëgg affaire de histoire donc nit ñi moom histoire bi moom moo ci gën a fës. Euh, euh, artistes yi nu ñu leen di programmer c'est simple ku bëgg a ñëw na ñëw. loolu kese la kii bu ñëwee wax keneen ñoo ñëw wax keneen ñëw wax kese la mm. donc loolu kese la. Mm ok émission artiste la quoi. ok ñi lay déglu ñi lay déglu instant bi parce que tamit euh, ngaay am na jeune talent. Mhm. Euh, ku mel ni Ibzo for life euh, rappeur la. Mhm. ak ñeneen ak ñeneen ñi ngi fi. Mhm. peut-être je crois loolu moo waral tamit ñu créer association tamit si côté culture urbaine. bu ma naan côté culture urbaine waxuma rek comme par exemple si domaine rap ku mel ni Pape Samba mi nga xam ne day def mbalax tamit. wala ñeneen ak ñeneen ñi fi. gis nañu tamit ku mel ni Talla Thiam tamit. mi ngi si studio bi nga ànd ak ñoom lan moo waral collaboration boobu noonu. ak tamit euh, je crois euh, bi mooy euh, deuxième xaw ma troisième fois ba nga xam ni ñëw nga tew ci sa diwaan. bu ma naan sa diwaan mhm. Ngaye. parce que wane nga ni wane wane wane nga que ni ngaay nga dëkk tamit bon bu ngay koy jël comme par exemple sa statut. au niveau de euh, Dakar tamit doontoo ko nga xam te nga koy présenté ñu bëri xam na la si presse beeg yooyu. Mm-hmm. mais nga ñëw tamit nga lëkkaloo ak euh, waa dëkk bi bu mu naan waa dëkk bi mooy euh, jeunes yi ñi nga xam ne ñi ngi dëkk Ngaye. Mm-hmm. moo bëggoon ñu waxtaan ci côté boobu. waaw bay sa bay sa wayu tànk. comprendre balaa ñu koy sànni mu nekk ci àll bi dañ koy dàq mu ñëw ci kër gi comme lu ma waxoon sànq man fi laa juddoo. Mm-hmm. xam man aw ma lu dul Ngaye. comprendre parce que f fu ma dem ci àdduna ak lu ma mënti def neen ma yow fa jugee. moo tax ñu ñëwaat à la base ga xëy na euh, adum àdduna moo demee noonu dañuy juddu màgg nekk di outil bu ñu ba am fii dañ koy indi waaw culture urbaine dafa yaatu waaw sànq yaa ngi wax ci mbalax bi tey mbalax bi presque culture urbaine li ñu gën a def sax que mbalax bu saf-saf bi mm. voilà mbalax bu saf-saf bi fii Sénégal lay yem culture urbaine moom dafa yaatu c'est international tey boo bëggee def moom da ngay ñaan nga def ba jéggi yow fi nga nekk mm. donc c'est ça euh, jeunes yu nekk fii maa leen di xaar fële mais tamit du foofu rek laa leen di xaar man tamit damay ñëwaat sànq yaa ngi doon wax ci concept boo xamante ni moom ci sama émission la bokk am na lu ñu wax taal sa koñ taal sa koñ euh, émission la boo xamante ni émission taal rek show mooy wàcc ci koñ bi bu mu waxee koñ du koñu Dakar rek mais foofu la ñuy dooree parce que tamit rajo bi Dakar la nekk donc bëgg naa tamit bu ñëw fii ñu def émission ay ay xam ay bagages quoi ak ñu fa nekk mais du yem rek ci man moo tax ñu yaatal ko def ko association ki comme Talla Thiam au niveau de Dakar kenn du ko présenté lépp li li nga xam te ni muy ci aar bi dem Joal la jógee donc loolu ma lay wan ne ni peut-être que ñun suñu base foofu la mais ñun suñu sañoon ñun ñu nekk fii mun a yëngu fii ba fii yëngu ba peut-être gars yi sax fàtte Dakar ngaay Carrefour la munoo dem ci noor bi te doo fi jaar xam nga aéroport bi soriwul xam nga peut-être que lu bëri dañ ko concentré Dakar mais ñun bëgg nañ indi affaire yi fii quoi. incha allah mm. ok sànq wax nga ku mel ni euh, Talla euh, war na ko ma a egg war na ko mën a mm-hmm. que li ñuy wax rek c'est une zone de culture